waaw onze billahi na seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen ah waa di leen di wax rang muy abone tout droit ngeen laal kolos bi lu ah, luñ dugalati ngeen bokk si ñi koy njëkk jot waaw tey mercredi le 2 février 2022 comme ni ñu koy defee chaque mercredi ñu ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy le journal du Mbapat. waa journal bi mbapat bi nag dañ koy commencé ci li nga xamante ne moom mooy résultat yi buñ paree ci jàll ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy programme mu lamb ci weekend bi ñu jublu wala semaine bi ñu jublu léegi résultat bi ci semaine bi ñu génn dañ koy commencé ci samedi bi le 29 janvier fi nga xamante ne moom mooy coom bi coom bi njàkk dëgg Lamine Diouf mbin ko du lamb ji fa amoon rajaxe moom moo ko jël rajaxe bu Kër Fodé moom moo ko jël jël ko ci kaw géey waaw foofu ca coom bi poids yi abu asef abu asef bu palmarin moom moo ko jël jël ko ci kaw barrage bu bawut wala ala maane raaw gaddu ya foofu ca coom bi ndiig maama ndiig maama bu ndangaan moom moo ko jël jël ko ci kaw mbin mari waaw léegi ci le 29 bi fi nga xamante ne moom mooy yëngale amoon na lamb foofu ca yëngale ci samedi bi Mansour suurtin bu soob moom moo ko jël ci kaw nguso nguusoo bu dëkk ongaq waaw ñoo ñoojoor aussi mu ngi doon jeex ci samedi bi le ñoo ñoojoor foofu Paul mant Paul mant bu mbuur moom moo ko jël jël ko ci kaw Maam Moutar léegi bu ñu jógee ci samedi bi ñu jàll ci dimanche bi le 30 janvier fi nga xamante ni moom mooy Dakar Adrien Senghor amoon na làmb foofu ca Dakar Thiaw Sow X9 moom moo ko jël jël ko ci kaw Tas Yaakaar Tas Yaakaar bu Pikine ginnaaw raay écurie xam sa cosaan waaw léegi ci dimanche bi ba tey le 30 janvier fi nga xamante ne moom mooy Baasaar amoon na lamb foofu alaaji Ousmane wala bukki bu nangaan moom moo ko jël jël ko ci kaw ak kasab ak kasab bi dëkk munde poids yi foofu ca Baasaar du du maane du maane bu munde moom moo ko jël jël ko ci kaw maam baabu bu dëkk jirnda waaw léegi ci dimanche bi le 30 fi nga xamante ne moom mooy ro ro ci la doon jeex fofu rajaxé mom moko jël rajaxé jël ko ci kaw dem ba bu Jifeer kon weekend bi mën nañ wax né rajaxé moy lam de la semaine si benn côté parce que jël na fi nga xamanté mom moy ciom bi bi set mu ñëwaat fi nga xamanté ne mom moy jëlaat ko waaw fofu caro poids léger yi El Amadou sar mom moko jël jël ko ci kaw Maurice bu palmaré raw ga yi fofu ci ro ki guy gi bu gila bu jilas guy gi bu jilas mo jël raw ga yi ci kaw sini bu barñé waaw ci le 30 janvier bi aussi ndangan sambu ci la doon jeex ndangan sambu poids libi dor libi dor bu kayar mom moko jël jël ko ci kaw elas njay caatu ay dawala jon las bu zal waw poids léger yi foofu ca sambu mbir njol bu zal mbir njol moko jël jël ko ci kaw amet jox wala double moteur bu palmané buñ joggé ci dimanche bi le 30 janvier lundi bi le 31 fi nga xamantene mom moom jof yor ci la doon jeex ja jof yor Franc Gomis Farang Ndiago Or mom mo def retour jël ko ci kaw ngañ sen donc yor Farang mo jël poids lourd ci kaw ngañ sen bu ndaga ñaaw poids léger yi ja jof yor Moussa Kaling Moussa Kaling bu mar faafa ko moom moo jël ci kaw momu Zidane momu Zidane bu ñoo joor waaw 31 janvier bi aussi kouta amon na lamb fofu ndig mama ndig mama bu ndangan sambu mom moko jël jël ko ci kaw benn gain bu ñuy wax du njaay foofu ca Toubacouta waa léger yi Amadou Messi bu dëkk Jonwaar moom moo ko jël jël ko ci kaw Arara Arara bu sookoon leen di wax ne loolu mooy liñ jotoon ci ay résultat wu làmb waaw léegi dañuy jàll ci programme yi làmb ji nag am na yu bëri yuñ si jot mais ku ci am lamb aussi te waxuñ ko nga xam ne dañoo jotul information bi mun ngeen koo bàyyi aussi ci commentaire yi ci suuf comme ça gars bu ñuy xool commentaire yi mun nañ koo gisaale waaw léegi lamb yi tey ñu ngi mercredi le 2 le 2 février 2022 ah donc jagle jagle tey la commencé jagle le 2 la ak le 3 foofu ñu ngi fay teg ñetti nag ak cinquante mille francs foo jagle ah ñetti nag ak cinquante mille francs lañu fa teg le 2 février ak le 3 la waaw le 3 bi ci jeudi bi sum loog am na lamb le 3 ak le 4 sum foofu ñetti nag lañ fa teg ak benn saaku ceeb ak 82 mille francs sum looga ah, waaw le 3 ak le 4 ñetti nag saaku ceeb ak 82 mille léegi le 3 le 4 le cinq ba le 6 fi nga xamante ne moom mooy gaage Chérif am na lamb gaage Chérif foofu un million 750 mille lañ fa teg 4 jours la du 3 au 6 février 2022 gaage Chérif 1 million 750 mille léegi le 3 ba le 5 fi nga xamante ne moom mooy januar am na lamb januar foofu ancien gloire yi ñoo fa woote ah tegal mbër yi cent mille januar ci île du Saloum yi ancien gloire yi nag bu ñu wootee ah ñëpp a fa war a mun a teew ah. lamb ju war a war a mën a neex lay doon waaw ndax ñoom rek seen yëngal rek mot na làmb léegi li ko dalee le 4 février ba le 7 février 2022 ah foofu nag waa Joof yor ñoo xewle lamb ju rëy lamb cosaan daaru nimsaat boo ko waxee rek nga wax làmb waaw Daaru Nimzaat di tëgg seen dix-huitième édition ngeen xam ne lamb boobu lamb ju mag la dix-huit édition loolu du ay caaxaan lamb jooju ba muy tëgg yaakaar naa ñun ñi ay xale yu ndaw lañ ah Daaru Nimzaat Diofior ñoo woote di 4 au 7 février 2022 tegal nag mbër yi 2 millions 4 jours ah di 4 au 7 février 2022 foofu lëndi lay jeex ñu tegal mbër yi 2 millions ca Diofior waaw. léegi le 5 février bi lamb am na fi nga xamante ne moom mooy Adrien Senghor ci samedi bi Boucar bu Reug Reug moo fa woote tegal mbëri 1 million 1 million le samedi 5 février Adrien Senghor léegi ci samedi bi le 5 février Mbapat am na fi nga xamante ne moom mooy Fatick Njaanjaay Fatick gars yi teg nañ fa benn nag un bœuf cinquante mille benn nag ak fukki junni ca Njaanjaay Fatick waaw. léegi le 5 février ak le 6 février fi nga xamante ne moom mooy Mbélaka Diaw waaw njom cosaan Mbelacka Diaw ñoo woote tegal mbëri un million cinq cent mille waa tout droit Mbelacka Diaw le cinq ak le 6 février waaw léegi le 6 février bi mooy ci dimanche bi Mbelacka Diaw ci lay jeex un million cinq cent yi mais terrain gaal gi am na lamb ju rëy million millions Dakar ci sam ci dimanche bi le 6 waaw carte production moom moo fa woote. le dimanche 6 février 2022 mais ba tey dimanche bi 6 février 2022 Iba Mar Diop am na làmb ñu teg fa 3 millions mooy 3 millions terrain gaal gi 3 millions fi nga xamante ne moom mooy Iba Mar ñuy wax nag ah promoteurs yi des fois nañuy xool parce que loolu ñaari lambu 3 millions biir dakaar dina xaw yema torop des fois de len di waxtan sen bir ngeen bayyi kenn tëgg kenen ki xaar benen jour parce que fi ci arrondissement fim la gis nañ fi lu mel non semaine bi passé di tëgg ndangan sambu di tëgg jof yor di tëgg mo bo xoolee ci dimanche bi lamb ndangan bi waaw public bi demewul noonu ro aussi public bi demewul noonu donc yeen promoteur yeen akoy def di forcer di tëgg ay lamb yu tombe mais arrangé wul kenn ci yeen de len di waxtan sen bir parce que amna ay zone yo xamne ñaari lamb xejju fa digante ro ak ndangan ak jof yor ñetti lamb ci benn fan day xawa yéeme ci mbeur yi ci amateur yi yeen promoteur yi na ci gañu parce que yeen ay investir sen xaliss dakar aussi terrain gal gi 3 millions ibamar 3 millions même jour le 6 février ah moy loolu ngeen ba ci xel di waxtaan sen bir hein ah. léegi ba tay le 6 février bi jour boobu la gaag gi di jeex le 6 février gaag gi le 3 la jeex mais la la commencé gaag gi Cherif le 3 la commencé mais le 6 lay jeex ñu teg fa 1 cent 750 mille waaw léegi ci lënd bi nag Diofior mooy jeex fi nga xamante ne moom mooy daaru Nimsaat 2 hmm, millions yi yaakaar naa ak ñu koy partagé poids lourd yi 1 million lañ cay teg kon tout droit Diofior daaru Nimsaat ah. gaay rang muy abonné zal le cameraman bëgg na la ah. doomu ndeyu gay na ko le filik ak moda lu nga malik ndjay 37 fou lolou kot la acha <laughs> rang ñu leen di jox dig dajé benen mercredi hein ah. waye sama grand nak Ousmane Saxo borom geja way hein ah. kérok dajé nañ geña na ma contente yow bu baax baax mom day suivre la TV di suivre le journal di mbopat à chaque fois mais gars le 13 février Inch'Allah, allahu rabi ordinateur Modou Faye le champion d'Afrique yàlla sinik dafa am combat Ngor ñaax dafa am combat machine Akan Ganja Fama borom ñoom baato bu bëree mu neex bu mu neex dafa am combat Wow, kon gaay rang muy gaaw tout droit stadium Iba Diop ordinateur di beure Gandia Fama di bëre ngoor Ñaax di bëre ñooñu ay champion d'Afrique lañ représenté Sénégal nag fu ne ah yàgg taxawal Sénégal yàgg a défendre les couleurs nationales ñooñu bu ñu xewlee ñëpp war a bàyyi seen yite yi da jënd ay ticket sañsee lu rafet xeeñ lu neex dem stade yëngal ci kaw gaa yëngal ci suuf ah kon zulum zalam tout droit stade Iba Mar Diop supporter suñu champion d'Afrique yi